alors ci kanam juste après jàngat bi rek dinañ ànd ak may a busoo bokk ci euh, yeewi askan wi moo nar a nekk suñu gan Abdoulaye Diédhiou egsi na Abdoulaye euh, suñu sëriñ ñu ngi lay nuyu di la ziar mbaa am suñu sëriñ ñun ñëpp. <laughs> naat naat naata man sa sëriñ maa ngi lay maa ngi delloo ziar ñii di di dingat nag euh, bàyyi leen ñuy dingat. bàyyi leen rek dinaa soppi ñenn ñi nag micro laa leen di def bàyyi leen rek. micro. <laughs> rajo ah ah sama sëriñ tey nag gis nga séeréer dafa mel ni tey jii ñoom ñoo fi nekk en surnombre waaye waaye garaawul man maa ngi fi sa beneen taalibe ngi fi muy Chérif du dëgg moom sëriñ sama sëriñ ah <laughs> usurpation de fonction tam baaxul li nga baax na Abdoulaye Mbaye yaa ngi si jàmm. waaw sant sant bu wér. sant alhamdulilah allah alors euh, fan yi am na lu ñuy waxtaanee lu bëri muy euh, Juan Branco bu mu duggee Sénégal ba ni mu fi ñëwee feeñ ci euh, conférence de presse bu ay avocat yu yeneen. Ousmane Sonko ak euh, ni ñu ni mu demee ba rëcc ba ni ñu ko jàppaatee ñu bëri dañoo jàpp ni xaj na dañoo am problème foofu noonu ndax naka la def ba dugg ci réew mi bay dem bay génn ba génn ba pare sax ñu door ko jàpp indiwaat ko fii ndax dafa am ay sooxee ci wàllum renseignement ci mbir mi. waaw dëgg la ne ni nga ko waxee coow li bëri na ci trop bi Juan Branco ñëwee ba dugg biir Sénégal ak anam yi mu fi duggee mm-hmm. xëy ba mu ñëw taxaw ci euh, conférence de presse ba mm-hmm. ci la ñëpp moo xam journaliste yi moo xam euh, renseignement bi euh, ñëpp li ci lañ door a xam ne Juan muy woon biir Sénégal alors boo boo ko jëlee première lecture nii mm-hmm. nit boo xamante ne bokkul ci réew mu xëy lu mel ni Juan Branco jaar ci beneen réew jaar si ay bunt dugg si sa biir réew ñëw ne cëpp si lu mel ni conférence bu mel noonu. Mm-hmm. di ne euh, lii du yoon te loolu mooy dëgg. <coughs> mooy dëgg mm-hmm. euh, parce que état dafa organisé dafa am police am am gendarmerie ak lépp mais boo xoolee euh, maanaam de façon beaucoup plus approfondie maanaam boo demee ba nga xam li xewoon réellement mm-hmm. di nga xam ne que amul. tort réellement bi ngay mën a euh, teg ci ndondul euh, police wala gendarmerie wala service de renseignement bi de façon générale. Mm-hmm. parce que ci tënk Juan ni mu yegsee euh, Juan dafa njëkkoon a ñëw. Sénégal ñu ruppule ko. Mm-hmm. mooy bi mu njëkkoon aéroport mm-hmm. après mu am benn instruction bu ñu joxee au niveau des postes postes de passage officiel mooy aéroport ak fépp pour que bu ñëwee dañ ko war a delloo loolu amul dara lu mu laale ak mandat d'arrêt bi. mandat d'arrêt bi après la ñëw procureur requérir un mandat d'arrêt à charge maintenant pour le juge d'instruction pour que mu mu émettre mandaa bi mandat boobu émettre ñu ko woon Juan Branco avocat la xam na yu mel noonu maanaam mandat di nga gis sa bopp. Juan toog na xam na ne def na peut-être ay recherche am gis na ne newu fa. Hmm. donc tout suite il comprend que moom mi mandat d'arrêt bi nga xamante ne moom la procureur requérir requérir hmm. mandat bi kenn ordonné ko. Hmm. et donc il peut descendre dans n'importe quel aéroport. bu lee bu mu demee nag ba jàpp ne war na mën a ñëw Sénégal fan moo gën a jege pour mu mun a dugg si fii évidemment c'est la Gambie moo nekk dans le ventre même du Sénégal puisque mun na wàcc dans à l'aéroport de Gambie kenn du ko kenn du ko inquiété puisque le mandat n'est pas n'est pas émis il entre euh, normalement en Gambie il descend à l'aéroport il il quitte même l'aéroport sans être inquiété après il y a eu des gens ñu ñëw ñu récupérer au niveau de son hôtel je pense que c'est Ocean Beach euh, de, de Banjul parce que 2 heures la yegg si Banjul ensuite am na lu ñuy naan les les euh, les postes de euh, les de passage officiels. Mm-hmm. maanaam bu ma fi jógee nara dem Casamance nara traversé par Gambie. Mm-hmm. dinaa jaar ay Karang wala Kër Ayib ak yooyu. Mm-hmm. ñu enregistré la nga dem. bu fekkonte ne xawaan moment bi muy génn euh, Gambie di ñëw Sénégal dafa jaar ci poste yooyu ñu enregistré ko ba pare ñu bàyyi ko mu dugg ci alors que amoon na benn interdiction pour d'entrer dans ce territoire là la faute elle reste entière pour les forces de de de, sécurité parce que dañu dañu violer li nga xamante ne dañ ko fi tegoon ba pare mais quand Juan Branco ak ñi mu àndal parce que Juan xamul Gambie. Mm-hmm. waxtuma lu Sénégal bay ñëw xaaju guddi mu ngi traversé frontière bi aux environs de 3 heures du matin. Mm-hmm. oto bi ko jëli euh, à la à la frontière bi ñu traversé benn oto la boo xamante ne fii la jógee bugguma torop sori parce que boobu hmm, tamit Sénégal la jógee dem Gambie Sénégal Dakar gii la jógee pour être hmm. très précis dem jëli ko euh, à la frontière côté Sénégal hmm. donc dafa am ñoo xamante ne ñoom ñoo ko jëloon ñu indi ko donc moom bu demee nag mu jaar ci yu mel noonu frontière bi da nga gis kër goo xamante ne borom kër gi néegam néeg bi mu ngi biir Gambie salle bi mu ngi Sénégal c'est pour dire euh, complexité bi am si frontière yooyu. Mm. et maintenant si la personne décide de traverser nuitamment ci zone yooyu noonu. voilà après nga dugg nga dugg ak moom jël ay ay kii ba xëy fajar nga yegg ci Ndakaaru fii lu possible parce qu'il faut retenir une chose et c'est très important il n'y aucun pays au monde. Mm. aucun pays la il les États-Unis bu mën a taxaw ne man sama frontière terrestre wala sama frontière maritime waxuma aérienne ñaar yi dinaa toog ba euh, doomu aadama du fa romb amul la preuve aujourd'hui euh, la nouvelle filière euh, latino-américaine des Sénégalais mhm. mooy Nicaragua. et tous les jours les gens ils traversent la frontière américaine mhm. te tout le monde sait combien de fois c'est kii beneen frontière bi nga xamante ne jàpp nañu dafa hermétique mooy bu Israël. Mhm. les Palestiniens ils passent comme pas possible. et ça c'est dire la complexité bu am san ne renvoie même pas dëgg naa ñeen di wax oui la porosité de nos frontières c'est galvaudé c'est pas possible hmm. c'est impossible amul benn pays bu la mën a wax ne que man dinaa def dama lay jox benn exemple hmm. lorsqu'il y a eu euh, l'épidémie euh, ak Ebola euh, man jógoon naa fi ma dem Conakry hmm. par la voie terrestre dama jaar c'était pour faire le, euh, le point sur le dispositif sécuritaire et sanitaire mm -hmm. du, côté Sénégal ak côté ki si laa bindoon il la fermeture des frontières l'armée sénégalaise dafa jëloon sax ay dadoon def ay patrouilles aériennes mais n'empêche malgré patrouille aérienne malgré fermeture bi ak lépp mais les gens ils payent les Guinéens ils entre 75 et 150 000 ay Guinéens yu doon jaar ci forêt bi pour ñu dugg ci bi et y en a énormément qui sont passés mënoo ci dara ça c'est comme ça. mais mais jooju am na loo xamante ne comme dañ cee teg bët. même dugg ba mën nañu quand même s'interroger nii mais. bu fekkee ne xawaan ñëw na ñëw biir Ndakaaru ci en direct la. Mm-hmm. jël otoom après dem à une semaine jéggiwaat frontière ba Mauritanie Sénégal di ci doog jot quand même loolu moom layal ko dina jafe. Hmm. alors dina dinaa ci euh, tënk tuuti pour nit ñi mën a comprendre un peu comment le renseignement di di fonctionner le renseignement euh, lépp li muy def da kay def sur instruction lorsque Juan ñëwee ci point de presse bi mu toog ci biir point de presse bi il y avait des éléments du renseignement évidemment en si il y bi mu ñëwee ne tëll génn si kii bi kii les gens ont remonté l'information automatiquement il y a un renfort ñii du ñëw ak ay oto ils sont venus devant l'hôtel relais avant sax Juan di génn jusque-là ils n'ont pas eu parce que euh, les gens également du parce que Juan fel na leen rek oui tout de suite il faut euh, jël décision jàpp len ko kii les gens ils, ils réfléchissent en haut qu'est-ce qu'il faut faire est-ce et cetera il y avait déjà pas le mandat d'arrêt qui n'était pas encore ba léegi ba moment boobu c'était pas encore euh, émis mm. alors les ce qui a été décidé mooy que Juan il fa que ñu bàyyi ko mais ñu filé ko il a été filé ba ay euh, fii yëpp Euh, par yu doon kii a été filé par les caméras ensuite il y a eu d'autres moyens yu gars yi jël moo taxoon d'ailleurs tout son tout le long de son séjour gars yi ñu ngi ko doon topp xamoon nañ yenn saa day fanaan fi mais pourquoi alors il n'avait pas été arrêté Juan bi muy dugg ci biir kii bi au Sénégal. Mm. évidemment c'est c'est vérifié par par les les services de renseignement Juan du moom moo ñëw wàcc Banjul jël otoom moom kese mu jaar ci àll àll boobu ñëw. il y a eu des gens qui l'ont aidé. Mm-hmm. vous arrêtez tout de suite Juan c'est mort pour ces complices là c'est fini dootoo leen jàpp. les gens ont décidé de d'ouvrir une enquête pour que ñu mënoon dem ñu xam exactement ñan ñoo nekkoon derrière ça le fait d'aider quelqu'un à entrer de façon irrégulière voire Hmm. or jàppoon Juan loolu instant boobu moo doon li gënoon yomb mais tu arrêtes Juan c'est mort pour les autres et les enquêtes qu'ils ont qu'ils ont qui ont été menées hmm. ont permis d'identifier des complices am na ñu ñu jotoon arrêté on les on connaît tous loolu il a fallu que ñu ñu continuer di ko filer pour que ñu gis ne que Juan bu ñëwee forcément du nekk dans si néegam forcément dina am ñu muy waxal dina am ñu muy jokkalante et cetera et cetera et ça il n'y avait que l'enquête et les filatures yu ñuy mener pour que ñu mën a mën a gis identifier mettre des visages sur des gens qui étaient euh, aussi proches de de de si kii bi noonu. maintenant pourquoi avoir attendu ba mu dem ba un territoire mauritanien pour pour door koo jàpp. waaw ça ça c'est euh, c'est un peu dans dans la suite cest toujours dans la suite de de, de mm-hmm. des personnes qui étaient recherchées les complices que il y euh, trois euh, voire quatre personnes mm-hmm. yoo xamante ne jàppoon nañ ko. pour recel de malfaiteurs, c'est-à-dire directement lié à l'entrée et au séjour irrégulier de Juan Branco au mm. Sénégal. Mmh. Il y avait d'autres qui étaient am na sax ay yenn mbër qui ont été inter interpellés pas arrêtés mm-hmm. pour nécessité d'enquête après ñu bàyyi leen parce que euh, voilà dañ nekkoon seen liggéey. or Juan moment bi mu nekkoon yëpp on savait qu'il allait sortir. le renseignement le savait mais xamoon nañ ne que du mun mun du du sax xalaatul ne dafay ils ont continué ils ont mis la les les souricières continué di ko surveiller. et lorsque bi mu décidé ne dafay dem euh, day génn le pays parce que entre temps. Euh, la DPG la direction de la police judiciaire a, euh, a, a saisi. le, euh, la Gambie et mm -hmm. tous les pays frontaliers, Mauritanie, etc., de la situation d'abord de l'interdiction de nekkoon toujours <clears throat> pendant mais également de la de, du mandat d'arrêt qui par la suite a été émis. Voilà. Mhm. Et donc à partir de ce moment-là, tous ces pays sont qui Et Interpol également avait été euh, mhm. par la DPJ. Juan n'est pas quelqu'un qui, euh, qui qui qui progresse aveugle, dafa am ñu mu nekkal et des gens qui sont bien renseignés et léegi il savait exactement la situation lii la woon et il savait également que les taux dafa nekkoon di resserré contre lui et c'est plus muy continuer di fi nekk y un danger de démasquer yeneen surtout que y avait ñenn ñu commencé woon jàpp hmm. il fallait que mu quitte mais il fallait que mu quitte clandestinement les gens ont continué à le filer bon je vais pas dévoiler yenn méthode euh, technologique yi nga xamante jot nañ def pour mun ko mun ko topp ba mhm. xam fi mu doon séjourné et tout mhm. mais lorsque au moment de de d'embarquer à à Rufisque mhm. les gens se sont rendus compte qu'en réalité ñenn ñi doon xool y avait personne ok am na ay yeneen jeunes yi fa nekkoon mais c'est des gens qui étaient identifiés c'est des habitués des lieux et Juan était pratiquement moom ak le le pêcheur ñoom ñoo kii woon les gens ont euh, pour leur dire que euh, jox leen kii la la filiation et que le gars pourrait débarquer n'importe en Mauritanie par contre il a été demandé aux forces mauritaniennes mmh. de surveiller le débarquement de surveiller parce que liñ li li ñu si jublu woon moo doon que moment bu fekkente ne les gens là ne sont pas venus ici Juan bu wàccee Mauritanie xamul Mauritanie. Mm-hmm. il faut que mu am ñenn ñu koy ñëw toujours pour dimbale ko alors il fallait essayer de retrouver peut-être que ces gens là par par par ruse décidé dem xaar ko foofu parce que bu ñu ñëwee fii mën nañ leen jàpp automatiquement fu xool di bran di di embarquer ils vont là-bas ils le récupèrent peut-être ils passent par le les du Maroc là pour génn et on a demandé ñe pour ñu ñu surveiller le débarquement malheureusement moom itam ñu jotee gisee euh, l'embarcation bi doon indi xawan ils ont arrêté automatiquement l'embarcation du coup il y les gens yoo xam ne s'il y des gens yu fa nekkoon ils sont partis. filature yooyu aussi gis nañ ci benn erreur y a une dame sax cité turam qui travaille à euh, ñu jàppoon ko ci yóbbu ko sûreté urbaine doon ko fa auditionné c'est maître Amadou Ali Kane même qui son avocat doon ko défendre. après ils se sont rendu compte que dañoo juum ne woon dame bi oto bi 4 x bi nga xamante ni ci la Juan duggoon ndaw si moo ko moom alors que euh, ndaw si Euh, li ñuy foogoon ne oto bi yow la du woon yow ça c'est déjà bien que nit ñi euh, dans le cadre d'une parce que une enquête elle n'est jamais parfaite au départ elle n'est jamais parfaite c'est d'ailleurs à la fin nga rendre compte que il y a eu des failles par-ci il y a eu des par-là et souvent les grandes grandes grandes les grands dossiers yoo xamante dañu dañu élucider va souvent euh, ça prend départ ci benn affaire bu ndaw boo xamante ni kenn du ko foogee sax yenn saa yi lii la et ça ça ça aboutit mais il est clair au final euh, am ci lu leer auto bi nga xamante ne moom ci euh, Juan moom la duggoon kan moo ko kan moo ko moomoon et cette personne là elle a été interpellée. Hmm. elle a été interpellée waaw. Hmm, hmm, ba tey ci euh, ci suite bi fast track bi ni mu gaawee jàpp ko samedi dimanche ñu tëj ko. altine ñu bàyyi ko mu ñibbi ñu bëri jàpp nañ ni euh, loolu xaw na gaaw te am na ñu bokkoon ci yëf yi ñu jàpp ni ay receleurs lañu am na ñu ci bàyyi am na ñun ci téye ba léegi. ku ci mel ni Pape Sow le maire de Sangalkam ba léegi ñu ngi ko téye alors que dans la même procédure d' autres gens ont été nan nga jàngatee traitement dossier bi en tant que tel. alors il faut il faut déjà gis na que dafa am ñaari ñaari ñaari pàcc voilà il y a la l' aspect euh, judiciaire enquête bi ak lépp et il y a ensuite la suite judiciaire qui a été boo xamante ne juste mais déjà foofu dama bëgg a juste taxaw si benn kii maanaam euh, bi ñu ko jàppee Mauritanie on a vu des gens même s'attaquer un peu àlla la à la Mauritanie ne waruñu ko woon jàppee tout or euh, Mauritanie même bu dul amul woon sax man mandat dare bu ñu émettroon lorsque quelqu'un quitte un pays de façon clandestine parce que mooy clandestine mooy jaaroo si voie euh, point de passage officiel yi nga dugg beneen réew moo xam Mauritanie la moo xam Gambie moo xam Guinée ce pays là dañ la war a jàpp et bu ñu la jàppee dañ la war a delloo pays bi nga jógee encore que mën nañ la sax ñoom tëye si pays bi nga pays parce que pour pour être entré de façon irrégulière dans le pays mais de façon général en général bu ñu bu ñu jàppee yu mel noonu surtout un dossier aussi encombrant que Juan Branco les gens ils s'en ils s'en débarrassent donc Mauritanie bi ñu ko jàppee ils l'ont rappelé ils l'ont euh, dañ ko refoulé vers le pays bi mu jógee bu doon Gambie la jógee duñ ko duñ buñ koy refoulé duñ ko refoulé Sénégal sauf si le Sénégal en avait fait la la demande dans le cadre du mandat bu boobaa dañ koy jël ñu delloo ko Gambie parce que foofu la jógee woon dugg seen seen biir maintenant euh, bi bi mu ñëwee c'est vrai ñu jàpp ko il y toutes les charges là qu'on a tous suivi mm-hmm. euh, yi ñu retenir contre moom le procureur a voilà et mieux il y a eu les les les les présumés complices yi ñu yi ñu jàppoon également euh, pour recel de malfaiteurs ñoom ñëpp ñu mettre leen aux arrêts après il y a maintenant euh, loo xamante ne peut-être que ñun dinañu dina échapper un peu à notre euh, lanterne euh, les les des forces et cetera def nañ ñoom seen liggéey après li ci des aussi wàllu politique la. ñëpp xam nañ diggante France ak Sénégal nu mu mel je dis je pas ba wax de pression je je je je m'interdis d'ailleurs cette expression là ci kaw dossier yu mel nii mais ñëpp xam nañ ne réew ak réew. am na lu ñuy doxee surtout que diggante France ak Sénégal am na une coopération judiciaire. moom il a évoqué l'Espagne sax en premier lieu. moom même bu ñu koy jàppee woon ki dafa ne woon moom d'abord espagnol. c'est ça parce que ba muy wax démb Espagne njëkk a évoqué door cee teg France. voilà et sur virgule noyyi bu noyyee sax dafa dafa am fu mu ko calculer c'est ça c'est son c'est son fort. c'est un activiste voilà c'est c'est du Blanco c'est vraiment du Blanco lépp lu mu lay kii am na lu mu lu mu lu mu denc ci ginnaaw il sait que lui il est il est il a le le passeport euh, espagnol il bu taxee mu nga nga ñëw mu ne la non man je suis espagnol am na lu mu lu mu muy lu muy si si ginnaaw mais ça c'est du c'est du branco. Oh, euh, du gis ne daf ñu fàttali benn épisode bu bu metti muy euh, bi ñuy teg suñu benn doomu Sénégal di dem si yàlla Lamine Diack ñu defoon ci ay jéego yu bëri mais taxul français yi séddee bàyyi ko. Euh, ñaari dossiers yi la c'est vrai que c'est pas la même chose mais euh, loolu ban jàngat nga ci def le fait que Lamine Diack toog fa ay diir mënuñ ci jot alors que kii ñëw def fi benn moins de 48 heures ñu yóbbu ko est-ce que li ñuy wax réciprocité est-ce que euh, dina am impact côté boobu wala am déet. bon mooy un peu comme li moo wax cest à que il y a de ces dossiers judiciaires. Euh, loxol politique da ci da ciy lal lu bëri et que day difficile pour que nga mun a mun a def un truc euh, arithmétique pour dire que oui en plus 1 bi égale 2 donc lii nii fii la war a mën a yeggee dama jox juste euh, benn exemple dem si yàlla l'ancien député sénégalais kii Cissé ba mu décédé Arabie Saoudite Alkali Cissé Alkali Cissé mhm. Alkali bi muy jógee fii ñu ngi ko jàppee woon Maroc bi ñu ko jàppee Maroc parce qu'il y avait un mandat d'arrêt international. Mm-hmm. Donc euh, Arabie Saoudite demandait à ce que ñu extradé ko. Mm-hmm. Maroc dafa mujjee def mais Maroc amul woon pour def loolu. parce que euh, selon convention internationale en matière d'extradition mm-hmm. on ne peut pas extrader quelqu'un vers un pays où il risque d'être torturé où il y a une euh, la condamnation qui est à, mort boo xamante ne c'est appliqué dans ce pays-là le Maroc le moment bi mu bi mu koy def mais il y a il y dafa am ay ay relation ay intérêts yu am diggante réew ak réew yoo xamante ne yenn saa day transcender euh, yenn kii et day impacté euh, énormément si yenn dossiers yoo xamante ne woon de la chose jugée fii ba pare c'est personnel naa état bu Sénégal moo sàgganoon rek moo defut la euh, la lan la la table du du souvent diggante état ak état il y a des des yoo xamante ne mais les gens euh, voilà dañuy dañuy dañuy trans day transcender yenn kii yi donc euh, dans le cas de Lamine Diack également il y a des choses qui ne se peut-être pas maintenant mm-hmm. euh, mais que les gens peut-être vont découvrir euh, après li waral bi affaire bi malgré la coopération judiciaire bi existait entre le Sénégal et, la, France, que la France ait décidé de retenir pourquoi gars yi fii la nan ñun c'est présumé complice Bon, après, euh, disons que Binbi, avec l'étape de, de, la Mauritanie, donc euh, ça, marque, ça, ça, marque presque une, euh, un point, un point, un point d'arrêt, en tout cas pour euh, la suite de filatures yu ñu doon def pour ñeneen ñi. Mm-hmm. parce que évidemment bu fekkente ne euh, foofu au débarquement de de de la Mauritanie euh, dans la ville de Ting Tingit moom apparemment bëgg na bu baax ay genre tur yooyu parce que te Tëngéej la jógee wàccee Tingit. en Mauritanie voilà donc euh, vu que jàpp kii wuñu si kenn donc euh, dina jëfe trop léegi pour que ñu mun a ne dinañ euh, topp ñenn ñi benn dañ leen dañ leen si dañ leen siy jàpp. Hmm. alors Abdoulaye ñu ngi koy dégg moom tamit démb ci conférence de bi mi ngi naan dina dellu si waat. waaye mooy mooy li ma leen wax léegi ça c'est du branco branco même même biir France. ku ko xam euh, ni mu mel biir France déjà euh, dafa mel ni euh, xaw ma ni ñuy wax doomu ñebbe si. si cin benn ñebbe ci cin benn ñebbe si cin. même France voilà <laughs> kenn mu. il s'agit on a on a vu ah, cette okay. l'histoire des des gilets jaunes en en France. Oui. et rôle bi mu ci def lépp donc France bu fekk lu woon ne nekk na benn réew bu am yenn démocratie ak yooyu amaana mm-hmm. xëy na Branco voilà am na am na nu ñu nu ñu def ak moom. Mm-hmm. tu vois ça c'est c'est dire tout moom ni mu nu mu et man. ça ne me surprendrait pas. ñu xëy euh, ñu ne ñu euh, gannaaw suba par exemple que Branco dugal na parce que comme je l'ai dit. Mhm. Euh, les frontières la bu bu kenn xalaat ne. oui comme que Branco ñëw na fi dugg donc c'est même toute la question de la sécurité nationale qui est mise en jeu. dégg naa ñenn di naan oui kon terroristes yi sax mën nañ fi dugg mais pour ça. Mhm. il faut voir que par exemple aujourd'hui mhm. si le Sénégal. est relativement épargné par euh, des attaques terroristes. Mm -hmm. Ce n'est pas que terroristes yi ne se sont pas intéressés au Sénégal. Mm -hmm. Il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs. bu ma bu ma kii je mën naa dem ba ne il y a à peu près plus d'une dizaine de tentatives yoo xam ne am na fi am na yu gënoon spectaculaire on a vu tous euh, il y a des hôtels yi nekkoon fii si corniche bi. Euh, les gens se souviennent encore il y avait même un dispositif qui a été mis euh, am boo xamante ne si guddi la woon parce que l'alerte était là <laughs> il y avait même une attaque boo xamante ne euh, c'était beneen beneen hôtel bi nekkoon toujours côté Corne Ouest où les gars ont quitté le Mali ils sont passés par euh, Rosso Sénégal ils sont venus jusqu'à Dakar ils étaient quatre il y avait un chauffeur Euh, moom moom il est il résidait ici à Dakar il y avait les trois autres parce que Schaeffer moom moo xamoon fii et c'est lui qui devait assurer le repli de de de ces djihadistes là après mhm. avoir fait le, le coup il y avait également quelqu'un qui était euh, un, un, très connecté dans un dans un groupe djihadiste bu fort mhm. il a logé ici à l'hôtel euh, à l'immeuble Kébé avec son épouse mu amoon benn cargaison drogue euh, cocaïne bu mu jàllale woon par par euh, Guinée Bissau mhm. et cetera et c'était yooyu c'était les les financements occultes du kii la et il fallait pas euh, cocaïne bi ça devait passer par la frontière sénégalaise dem fee oto bi jëli drogue bi fële Dakar Thiès gii la jógee woon mais tout ça c'est le renseignement moo dem ba ñu xam ne que ñoo ñëpp ñu yoon foofu kooku bi ñu koy bi jàpp heureusement que dafa quitté woon juste avant parce que mooy bi ñu jàppee oto bi. Mhm. Euh, euh, à la frontière sénégalaise moom si la demandé automatiquement ne jabar ji ak ñi euh, sa garde rapprochée nañu quitté automatique automatiquement yi le temps renseignement yi di yegg si immeuble fekk na ñooñu dem nañu les gars qui attaquer fii l'hôtel bi ma bi nekkoon fii sur la corniche cet aspect là Abdoulaye Diédhiou parce que mbirum Juan Branco ba mu xewee ñu bëri dañoo euh, nit ñi ñoom dañoo jàppani ni mu def ba dugg ci réew mi ay présumé terroriste tam xaj na wala ñeneen ñu bëggoon def ñaawteef bu mën ci doon ci Sénégal mënoon nañoo euh, jaare itam ci frontière yi dugg ci réew mi. mooy li ma leen wax France toog nañ fi mu am attaque terroriste boobu moom ñëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi fàttaliku. Mhm. en plein Paris si capitale bi. où était le renseignement français. saa il faut ñu ñu ñu ñu bàyyi bu amee yenn yu voilà bu amee yenn yu ñu voilà parce que bu amee yu ay xew fii comme yu mel nii ñu bëgg ni voilà c'est c'est fini la sécurité amuñu non tey s'il n'y avait pas un bon service de renseignement encore un bon service de renseignement mhm. c'est forcément un, un renseignement boo xamante ne day travailler en synergie ak yeneen force de, renseignement et le Sénégal c'est un peu son fort mhm. dafa am ay link yu am solo avec le renseignement français le a décourté wala def capoté yenn saa ay projets yoo xamante ne c'est depuis des pays comme le Mali la ko nekk di togg avant sax mu yegg yenn saa on file les gens ñu yegg si fii ñu jàpp et s'il n'y avait pas tout ce travail de fourmi bu nit ñi doon def aujourd'hui daanaka peut-être que li xewoon si yeneen réew yi ay Burkina Mali yooyu konoon dëgg nañ fi ay attaque ay bombe éclaté na fi bu ne serait-ce bu dee benn yoon mais les gens ils c'est comme c'est comme dans en matière de drogue foo déggee ñu ne la y a une tonne de de drogue bu dugg si. Ah, jàppal ne am na yu bëri yoo xamante ne rek. en avance voilà alors avant muy terminer juste lii ban euh, impact wala sax euh, ci image yu Sénégal l'affaire Blanco ndax dugg ci écore écorné tuuti wala cof tuuti ci image yu Sénégal sur la scène internationale déjà ce qu'il faut retenir c'est que l'affaire Branco dafay gën a projeter le Sénégal sous les euh, des projecteurs euh, évidemment partout dans le monde la France ak yeneen kii yi les gens se sont se sont intéressés à, cette affaire là il y a pas que la France beaucoup de pays l'Espagne fi nga xamante ne Branco bokk na ci et euh, voilà boo xoolee euh, les au niveau des télévisions la presse internationale de, de façon générale euh, la preuve Branco euh, gis nañ point de presse bi mu def démb comme ça a l'intérêt que les gens ont eu à, à suivre cette affaire-là. Et quand ça se passe comme ça, je pense, je pense, et ça c'est un avis personnel, euh, pour un État réfléchi, euh, comme le Sénégal, bu am tous ces problèmes yu mu nekk di traverser nii tu vas pas encore ajouter euh, une autre patate chaude euh, sous surtout que tu as la possibilité euh, dégager ko par le biais de d'une coopération judiciaire boo ko mënee da nga koy jël nga génne ko parce que plus Branco restait ici mm. après tu auras les organisations de défense des droits de l'homme tu auras l'ordre des avocats de de de Paris l'ordre des avocats fii les bâtonniers ci auras des des organisations link lay am au niveau international ñëpp ils vont faire feu sur sur le Sénégal. Mm. dina nekk un autre problème boo xamante ni on en a vraiment pas besoin. merci beaucoup merci Abdoulaye Diédhiou jërëjëf euh, da dangay desandi ak ñun ñu jàll ci euh, ponk bu mujj ci informatin muy sunu gan ñu dalal ko.